Naisan digante Bursin, Sine ah ngeen jàkkaarloog moom Bawal Mama Lamine féete góos jóge lamsar jam gën si kam ñu ngay lewaatoo di wërën tey wet eh Talla Ndiaye ey Babacar ki nga Mama Lamine ak Bursin. Sine mbokk bëgg noonu ndeysaan diggante attention xeexe ay oh laa bëgg diggante Bour ak Mama Yaa ndeysaan ndeysaan maa ngi toon ak bu Leewtoo mbokk lamba ngi nii ndey ndeysaan Babacar nuyu naa la ndeysaan ndeysaan nuyu naa ak lu lamb ndeysaan attention eh kaw eh lay eh yër eh dóor dóor Babacar day dem ba ndeysaan eh lay lay lay Bour Sine Baaruñ ko dóor bu daanu Mama Lamine jël na ko Mama Lamine jël laay Mama Lamine jël na ko Mama Lamine jël na ko eh, Babacar eh Babacar Mama Lamine jël na ko Mama Lamine jël na ko Mama Lamine jël na ko